njiitul sëriñ Afia ak kilifa yi nga xam ne ñoo toog sëñ Abdou Lahad di secrétaire seneral bi sëñ Abdoulaye Diop ak sëñ Abdou Lahad Mame mboolem banqaas yi nga xam ne ñoo ŋànk daayira Moukhaddamatoul Khidma ñu ngi nii toog ngir fas yéene yëkkati ay kàddu yu jëm ci e, waa Touba Angleterre ci seen liggéey ci koor yi kàddu yooyu nag ñu ngi koy jël di ko teg ci loxol sëriñ Fallou Diop mi nga xam ne moo dox suñ digg ak daayira Londres ci njiital Serigne Ablaye Dieng Fawseyni ci jëf ju am solo ji nga xam ne ñu ngi koy jëf saa su koor gi ñëwee ak lu mel ne waajtaayu màggal di yëkkati seeni addiya di ko indi ci liggéey bi euh, mu mu mu aju nag ci Londres ak li ko wër muy jëmmi daayira Londres Kurayli ak Brighton Euh, ñoom daal ñoo ŋànk liggéey bi nga xam ne moo ñëw ci koor gi su ko defee nag kon yeneen dëkk yi ci des nga xam ne dëkk yooyu yëpp wax dëgg demoon nañ fa ngir euh, yóbbu fa liggéey mu xadimatul ma fu mel ne Manchester fu mel ne euh, Bristol fu mel ne Birmingham fu mel ne Liverpool ba ci lest ak lest dëkk yooyu yëpp ñu bàyyi xel ne ku ci bëgg bokk ci liggéey liggéeyu daayira Muxaddamatul Xidma man nga jokk jokkoo ak jëwrin sëriñ Fallou Diop euh, euh, ak jëwrin sëriñ Ablaye Dieng Fawzeyni ca Londres ngir ñu tabbal leen ci liggéey bi ndax dafa mel ne at yi yëpp daayira ñoom lañ gis ne ñooy participer ci liggéey bi kon ñu ngi soññu sëñ daam géey mi nga xam ne mooy jëwrini Bristol di soññu sëñ Touba Sarr Manchester ak mbooleem jëwrin yi ca des yëpp daal loolu moo doon kàddu yoo xam ne kàddu yi cant la ñu xam ne daal liggéey bi agsi na te def nañ ko ci fiñ ko yaakaare muy jëbal ko sëriñ bi nga xam ne mooy borom liggéey bi yal nañu sëriñ bi bokk fay te ñu teew ko at yu bëree bëri barakati xaadim rasul ñu ngi sant nag ak ñaanal ak bàyyi xel sëriñ Njaga Ja sëriñ Njaga Ja yalla ko yàlla dolli yërmande ñu ngi koy fasaale bu baax moo nekkaloon foofu daayira mu xaadimatul ma def fa liggéey bu am solo yàlla dogal mu wàcc ab liggéey daaw daaw jéeg mu fi jógee ba léegi nag wax dëgg yàlla fal lu Diop ak suñ Ablaye Dieng Fawceyni ñoom waa Daayira Londres liggéey boobu dëkkut ñu ngi koy def di ko indi ci koor gi. kon yeneen dëkk yi nga xam ne daal ñu ngi Angleterre te bokkuñ ci ñu ngi leen di tàllal loxo di leen soññ ngir ñu tàbbi ci liggéey bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh wal tudxil musliha fi yadi wa fi daari wa thabbitanhu bilhaadi lwafi